Amen. fii nu toog tey muy ndindi la ma sëriñ bi wax ne naa ci waxtaan ak sëñ Fallu dëkk bii ren mooy téeméeri atam ak yent ndax sëñ Fallu sañc na ko 1913 ba wenn 27 sëñ Touba dikk Touba muy fukki at ak yent mu dëkkoon féeg nag ñu baax ñu ko gëm ñii sëñ tubaa da leen a boole ñoom ñii dañuy jëbbalu ci moom loolee lim ba toll na ci juróom benn fukki nit ak ñeent danaa ci tudd rek ñett ñoo xam ne ñii sëñ Touba moo ko jox sëñ Fallu muy sëñ Ibra Xari Njaay sëñ Ibra Xari Njaay doomam ju ñuy wax Abdou Xayta Njaay moo waral ndindi ab sëñ Ibra Xari Njaay moo jur soxna Binta Njaay mi yaay sëñ Abdou Saman Njaay sëñ Abdou Saman Mbakke moom sëñ Fallu góoru mag sëy moo jur Demba Korke mi ma jur Abdou Xayta Njaay doomam ji ñuy wax Fallu Faa Jóob moo waral ndindi Abdou boobaak léegi nag ñi fi nekk nga xam ne dañoo téyel sëriñ bi dëkk bi ku ñuy wax Mor Faama Njaay moo ci njëkk ba mu ci jógee Fallu Faajoor doomi Abdu Xayta ba mu ci jógee Madu Maane Sëy ba mu ci jógee Sëriñ Daaru Sëy ba mu ci jógee Màggat Njaay ba mu ci jógee Seex Siise ba mu ci jógee Alaaji Njaay mii ko yor muy juróom-ñaari chef moom la ñu leen am ci téeméeri at yi ak yenn diir boobu yi nag lépp lu fi sëñ fa lu liggéey donga yi di ko liggéey moom it mu di ko liggéey ndax kaamilam boobu yi nga xam ne wër na jamono fii la ko bindee bindin bi kaamilam boobu yi nga xam ne wër na jamono fii la ko bind findi bi su masaa di liggéey dongo yi liggéey waa dëkk bi liggéey bu lépp noppee nag ba kenn ku ne indi sa liggéey ak liñ ko jox ci addi ak liggéeyu boppam day def wut wenn kayit bind tur yooyee bind liggéey ba def ko ci kayit jox ko góor gu ñuy wax masaar xaar mu war mu wut fab yetti gëléem lañ ko joxoon bu noppee fii la koy safe lépp aw yoonu njaarim ba demee jébal ko si lépp loo xam lii bi mu koy naan di ko ta di ko tàmbali booba day jamono neexut waaye sëñ Fallou koo xam ne kii lépp lu mu songu bu ca naqar amee rek dana jàll waaye bu ca lenn luy nuru bànne amee rek mu tax moom lay dox di ci dox di ci dox ba sëñ Touba ñëw Touba bi sëñ Touba ñëwee Touba 27 bi sëñ bi rendoo sëñ Modou Moustapha sës ci sëñ Touba. mu fab bu jëmmam sasee ci sëñ Modou Moussa lépp lu mu ko joxoñ mu defee ko nam ko waxe góobi nañ tayif bàyyi nañ kàddu balo jigi fu ne ci àdduna sëñ Modou ba ci fii ci guy fukki seet fi bàq ya defal nañ sëñ Modou Moussa ba sëñ Modou Moustapha wuy ji sëñ Touba ñibbi àjjana fekki ko 1945 sëñ Fall doon xalifa toog fa sëñ Mourou Moussa toogal tàmbali lam tàmbali wax ci la sëñ Abdou Fatah moom sëñ Fallu mii feeñ soxna May mi bokk si Abdou Karim mii feeñ ñoo ci njëkk feeñ ci xalifaam mu jàllale liggéey boobu rek di ko dox ba tàmbali liggéey jumaa ji fa sëñ Modou Moussa yemal mu tàmbali at benn traw daru marnaan bi daal di wootee tàmbali ñànk bay fa yetti ba ko yenteel mu toxoo fa sañc aliya am fa juróom ñeenti at toxoowaat aliya dellu si waat Ndindi 1959 ba muy dex toxoo ñaar allié nag di dem di dellu si waat Ndindi jumaa ji lépp lépp lépp loo xam ne lii noppi na ci kaw lépp noppi na ba mu des benn toor bu mag dañoo jaayi gerte ga ca allié toxoo fa dellu si waat Ndindi gii sëñ fa dellu si waat Ndindi doo fay jóge fondation Soror bu mag bii Bamako fondation ndindi la xëye altine dem yenn Touba ci biir jumaa ji la yenn soro ba fii te kër sëñ Saliou tegoñ mu nekk ca nekk ca ba lépp noppi mu daldi fab rajo yi sant waa dëkk bépp wax leen la leen wax ba mu ci jógee ca ngoon mu daal di dellusiwaat ndindi gii daal dajale dong yépp ñu bokk toog ci kanam mu xamal leen na leen liggéey bii ma séq ak sëñ tubaab di ko liggéey ma ñëw damaa xëy si ngeen gont si damaa bëgg nu waxtaan ay nit suñu àndee dañuy waxtaan dal di ne leen bi ma tàmbalee liggéey bii de la ma waxoon laa leen bëgg a leeral ba ma xëyee ca ngoon ngeen dikk dama ne fii ma wàcc ngir liggéey Sëriñ Tuubaa bu fekkente ne li ma fiy liggéey danaa ci sànq ñaari fifti yu jëmut ci sëriñ bi lu ma fi ji yàlla mel ni xorom su fekkee lu ma fi liggéey ci moom lay dellu ak mu dikk na ma gënal ma ma weesu ma xëy si ngeen kon si kon dama leen a bëgg a leeral sama ànd ak yéen daal di ne man dey damaa fekk la sëñ Tuubaa tànn ci yonent ba sallallahu taala ba teg ko fee ma tànn ci lam tànn moo yéen ñi daal di ne yéen ñii toog yéen ñii fi sama kanam kenn ku ne tund ba nga jóge dikk fii tund woowee dëkk ba nga jóge moo gën ca tund dëkk boobee kër ga nga dëkk moo gën ca dëkk ba kër googee yow ma ca jóge yaa gën ca kër ga kër googee nee ba nga génne dikk fii yaa gën ca nee ba daal dina li tax ma wax ma ma wax leen ko nag moo di yéesule gimiñ dugg leen dama naaw dafa ne gimiñ dugg leen ndax bu leen gimiñ duggoon da ngeen di dikk ci ba sëriñ bi di ko sëñ bu sa moo génne ci kër gi yor ampul ak si ne ñii toog ñu ñu ne ko man a mu ne kooku góor a sëy ma ne ko mu ne ma ñëw luy sëñ bi ma ñëw fekk ko ci baraagu sëñ Moustapha gi moom dong mu toog yor ampul bi mu daal di may nit daal di ma ne waa gisee ma ne ko mu ne ma ñeme nga fi ak ndindee ma ne ko waaw koo ma yobal ñeme na mu ne ma kaay demal ma ndindi léegi boo demee neel sa baay Demba Kor ak Madou Mané Sey bu subaa ci talaata ji danaa fa ñëw seet si dëkk bi yeesalaat àll ba damay ñibbisi booba Touba gii xumbagut bi ma dikkee yoon waa ngi génne ci essence bii ci gaar bu ndaw aw bitig bu Malick aw biir kër sa ñaan loolu salaan la ba génn kër sa ñaan bi ma génnee ci kër sañ bi rek laa xelu ba génn bay dugg kër ñaan taxaw bu dox ba génn penc mi xeluwaat maa ngi àkki waa fii ci penc mi fekk mag ñi julli gee ba toog di waxtaan ma agsi nuyoo sama bàyyi na ma looy jox mbaay jàmm la ma ne ko sëñ bee ma yónni mu ne ma sëñ ban ma ne ko sëñ Fallu ñoom ñëpp ñu jóg toog góor gu ñuy wax Masaar mii ma doon wax daal di daw dugg ci bitig bi poti tàngal ya amoon te bu njëkk te am kubéer te gudd mu dem jënd pot ba dikki jox ma daldi xalan ko ci suuf si sama bàyyi ne ma sëñ Fallu nii mu ne ma lu wax ma ne ko nee na naa la wax ne yaag bàyyi ma du maa mii bu subaa ci talaata ji dana fi ñëw seet si dëkk bi ak àll bi day ñibbi ñu ne nga ne leen sama ma wax doo mel ne ko lii la ma wax wax naa leen ko booba ndindi gii penc mi soo kesee almet teg fii lakk dëkk bépp ñu daldi di yéene góor gu ñu wax Mor Ndaak <coughs> moo daal di fëgg ndënd mi yéene dëkk bépp génn ñu takki fas dem Payeen dem dem Kondore dem Kuucuuj dem Njeyeen dem Kër Mandiaye dikk Kër Ibra Tiin dikk sëñ Ibrahima Diop dem Daaf dikk dikk euh, Njuufeen dem ci waalo gi dellusiwaat ci guddi gi fas yi dëkk bépp daje fi ñu béy penc mi lay ko fanaane fay jàng ba bët set neuf heures sëñ fi laag si booba indépendance amul maa góor gu ñuy wax ma sëy ñang ñoo fa jiitu mu ne nee mbooloo mi nañ ma xaar ma dem ci kanam te dikk ba demee ba wàññi ku ba dikk taxaw oto bi góor gu ñu wax sëñ Baaba Njaay njëkk waxal moo yor bant bu mel ni sama bopp bi sukkootu ba jub ko àgg suuf mu ne ko sëñ Baaba Njaay agsil sëñ Baaba Njaay Njaay maam Baaba na ko Mbakke suñ xol sedd na gannaaw teg lañu bët mu ne ko jayesil ma ne ko maam Baba ñëwoon mu daal di ñëw sëñ bi ne ko siggil di gaale sa doom ju baax ja Maguette Ndiaye yaa baax doom daldi ko ne liggéey bu ma mas a santaane su ma séenee sa doom ja rek sama xol sedd waaye ku ko gis te xam ne sa xol sama xol moo gën tàngal ko de siggil di gaale sa doom daal di koy jox li koy jox jaale ko daal di woo nag mbooloo mi fekk commissaire bii nekkoon Mbacke ab tubaab la ñu war ko fee jëlee indi fi tubaab bu nit ku ñuul ñu doon ko woon si nag chef du bi ñoom ñoo ñëw ñëw di ki escorté oto sëñ bi ba mu àgg ba lépp jeex lañ fa nuyoo sëñ bi cib xaalis ak i ganaar tubaab yooyu la la ko jox daal di ma ne nag yow boo ñëwee dal wii dal daal dellu ali ñu añ ma daal di awaat nii aw tundóori daal dellu ali muy cinquante neuf nu teg ci yaari ay bis mu dajale waat donk yi ñëpp daje mu ne amut borom kër amut daara yëpp nu fanaan dindi nu dem ba le 7 juin 1963 jumaa ji mat ci loxoom fii ci ndindi mu bind kammaa kunta taamolu yaa xadiima bihi unihta fi daari naimi fakkun fi nihmatin abadan muqima muhaafan murtalan seexal xadim bisub altine li nga ma santoon def naa ko kero ba jumaa ji matee ba ñëpp ñëw ba eh, ku nekk ci réew mi te kilifa diine ak kilifa goo mën a doon ñëpp daje nañ mu génn yaar yoon yoonu njëkk ba la génn wax ak nit ñi dellu ci biir waajaat ak yooyu mujj bi dem ci jumaa ji yoonu njëkk ba ba mu génnee adduna sépp taxaw kenn desut muy na topp ci ba mu yéeg ci tribune bi ba mu toogee ba ne jàkk jumaa ji nii la defe baaramam nii la ma ko sante woon ma defee ko ni nii la ma ko sant woon ma defe ko nii la ma ko sant ma defe ko daal dina gees na mbooloo mi naaj wi tàng na ngelaw li bari na tàngoor bi métti na ngir toog di ma nekk rek ngir ngir bis bi wóor na ma ne taxawaay bi ngeen taxaw di ma nekk mooy seenub taxawaay ëllëg amutul ko ñu ne mu ne añ ku ko fekk gan da astafurlah teg ne ñi daa xii ci jumaa ji di ci gont di ci jànq di ci reñaan di ci fanaan ak yéen ñi fii doog a dikk tey ngir fekkee si yéen a ci bu yool añ ko ko fekkee ca nga sëñ Fall daal li ma ci xam daal mooy kenn la daal dama am lu ma xamee bi dama koo soxla man man maa ko bëgg waxtaan ceeg moom yi toog mënu ma wax ko sëñ Tuubaa ma ne ko déedéet mu ngi nii mm-hmm. mu ne ko sëñ Tuubaa day segg yëfam mm-hmm. da ngay bala muy aw fa muy aw bay del si day yàgg mu ne ma nooy def ma ne ko sama ndaama gi laa koy wax mu ne ma sama ndaam ma ne ko sëñ Fall laa koy wax sëñ Fall daal maa ngi yaa rek fi ko doon waxantee maa ngi moom mu ko waxante maa ngi moom bin eggale gan gu jógee ca Ndakaaru egg dugg ci biir daal di waaxu jubal si ma lam posam nuyoo ñaari junni saaga naa ko saaga woo wenn la moom kan ko kon nag sëñ Fallou sëñ Mortala Fall maa ngi ñaan ci barki sëñ Fallou jotaay yi na yàgg